wi oui, euh, euh, yàlla baax na salaamaaleykum Sénégal maa ngi présenté wu je m'appelle Barboline Barboline laa tudd di bàjjen ci Karim Wade yaayam ak mi man ñoo bokk benn yaay bu ñu jur man bàjjenam laa donc léegi euh, cat dafa gaaw cat bi dafa bëri Karim dina ñëw Karim di ñëw Karim day bokk Karim lii Karim la lee léegi nag doomu jàmbur da ngeen ko yàbbi bi ngeen ko sexee ba léegi yàbbiwu leen ko yàbbi leen ko lii may def nii nag c'est juste pour def laaxu tojal sareke Karim du ñëw Sénégal te tojaluñ ko parce que ñëpp a ngolog seen gémmiñ yi waaw Karim lu tax mu ragal ñëw pourquoi Karim Wade ne veut pas venir Karim WhatsApp Karim audio moo kenn ku nekk am nga sa aada ak sa cosaan dinañ ko defal laaxu tojal ndax sankal Sénégal la fekk baax waaye def naa suma ndugu tubaab ñu def ko laaxu tojal saxeex ko ñi nga war a saxeexee ma fàttali leen man la baax boo leen baax hm. tal naa suma gees yeneen koy dégg teg naa suma cin ndépp déjà kay jox ma ndox bi de l'eau filtrée pour bañ a am médicament cet ak la la dëgg la jóge neex naqari bëgg force def naa suma ndox la dëgg yàlla am Xadija voilà suma sànqel mu ngi nii Eh. ma bàyyi mu baax tuuti Karim Wade moom di ko bàyyi ci nii wala ngeen bàyyi ko ci nële parce que doomu jaamu am na ku nit bu amee kër ndey am kër baay eh, farawa di darawa di njëkk ci côté baayam waaye Marie Vert Suzanne Vert Henri Justine Justin Bernadette Lamé François Françoise Martini Bernard ñoom ñëpp ñoo bokk mel ni ku leen mel ni ci île des Matayons rue de la Bourserie en face euh, blanchisserie chez Étienne foofu la cosaanu euh, yaayu euh, kii Karim Wade fekk baax voilà kon def naa suma ndox gaz baa ngi baax baaxeel suma sànqal mu ngi am naa suma génn laaxu génn <laughs> hmm. voilà lii moom eh ma def suma aubergine wala dagg suma aubergine parce que aubergine maamu Karim Wade moom lay bay ci toolam mi nekk foofu ca Mulhouse ma dëpp suma aubergine doom bu amee kër ndey day am kër bay topp doomu jàmbur bi di di ko di ko ceetu di ko ceetu di rek def suma souffleur léelé Karim day bokk Karim day bokk du bokk ba Karim voilà voilà doom bu amee kër ndey di am kër bay papam liggéey na fii lu jar waaye di ko cetu site internet yi rajo yi journaux yi bu nekk Karim kañ lay ñëw yow gaawal ci li ngay def tamit bu doon grâce France ba léegi ñor na hmm. Lamine Thiat lépp lu Karim Wade ci Lamine Thiat ni ginaar du uuf di boofee ci nenam pour mën a jox boof naa Sénégal pour Karim tudd ci biir Sénégal nekk fi njiit mbal ci biir cet làmmiñ site internet yi ñi def revue de presse di tudd Karim yëpp mbàcce ci biir wala topp doomu jàmbur bi rek Karim Karim Karim kañ lay ñëw Karim kañ lay ñëw day bokk Karim dafa ragal ah merci bercy française kii nag bàjjenam bu naan Sophia Derleville nekk ci côté île Maurice chez Tata Caroline Débert moo ma ko yóbbante ay mbokkam ku nekk nga sa li nga ci récolte ren bi mhm. ah, ci table ki mbay bi mu jaay la laaj laaj laaj jarul xooli sax parce que coow li dafa bari ñu ko ci biir di ngeen bàyyi doomu jàmbur gi bilay di ko bàyyi topp Karim ko di Karim ba cër laa ko tojal ñeete lay c'est bien waa baax na laaj bu baax bi la di ngeen bàyyi taxem de yow gaawal bu doon gazu France ba léegi paaxe na lé lé lé lé sama sànqel <laughs> ma sànqel ko Really? léegi nag moom defoon naa aubergine bi ma dëpp ko ci biir d'accord sama kay li ba mu sef ñi nga xam ne seen làmmiñ yi dafa sef te nga xam ne lu ñu wax mu yàqu yal na seen làmmiñ yi lewet ni kaani salet ndax kaani salet ku ko yaakaar siitu doo siitu lewetel site internet lewetel revue de presse levatel chroniqueur levatel waxtu wal triniat influenceur levatel chronique politique journal par les jeunes def ngeen ko ci biir di ngeen ko bàyyi Karim di ngeen ko bàyyi ci nii waxa ci nali seex doomu jaamox bi nii doo leen ko yebbi lépp dina leer yow gaawal baax ah, comme ça voilà léegi patas patas patas Khadija wala patas wala patas patas topp doomu jàmbur gi Karim day bokk du bokk Karim dina ñëw Karim lii catu ko Karim lii Karim loolee jàpp comme ça ba Karim di chaque jour boo dundee journal gi ci Karim Wade ngeen di nekk mais amul ay am na bàjjen Karim am na bàjjen lu lee patas njam ba ci biir <laughs> wóole ngeen ko bàyyi ci loxo ngeen bàyyi ko ci ne li kaxot bu ñuy dëpp fii <laughs> qu'est-ce que ça veut dire ah topp jaamu jaamu wax bi rek laa xutagal koy def xam ne senegal yëpp buñ ko gisee dinañ xam ne kii doomu jaamu la wóole Ah, la carrière fontaine, je me suis si béni. Il y a longtemps que je t'aime, jamais que je pourvoirai. Le, le, le, le, le, le, le, le, Cette lamine, elle est possible. Même possible. Khadija, dorme indi bi. Morso te yukay bi. Wutel ma morso. Hein? Comme ça, voilà. La manioc. manioc ah. lii <laughs> ñambi bi lay tey kii ne mbay ñambi bi lay tey <laughs> c'est elle qui m'a volé les légumes là ñambi bi lay tey tey ko camp pénal Rebeuss sébi xotaan yàlla ci yàlla musal Karim wax ju ñaaw barricade lacrymogène gendarme DIC DGE Sénat parrainage ñambu ci biir moo kay bi wole di wole <laughs> wole ma warale ko wole Khadija may ma kii ndoxu teen bi wala kër wala indil ndoxu bi ana sow bi wala <laughs> sow la xutoje la xutoje wala Khadija ndoxu teen bi ñambi bi ndoxu teen bi ole <laughs> mu ngi xeeñ neex di ngeen ko bàyyi doomu jaabu bi bu soobee yàlla di ngeen ko bàyyi solet Khadija wala topp Karim rek Karim day bokk wara du bokk Karim day bokk ba Karim bokk doo leen ko bëgg ka cetu salade la salade mën a quoi monégasque de Lyon voilà Khadija xorom iodé voilà voilà bayre karim bayre neex bëgg naqari bëgg saf ñépp doomu Ablaye Wade ak madame Viviane Wade Martini Jeannot Jeannette Joséphine Émilie François Roger Milan Justin Justine Martini Benoît Bénédicte Alain Aline Joseph Joséphine Paris-Marseille, Lyon-Paris. Lyon de Paris, Paris de Lyon. Successivement, péché, tout va trouver. La chavane, tout petit, chavane, vos cheveux, tout petit. Olé savane, l'olé la savane. La savane des savanes, savane Paris. Vous suivez de Paris, Tchot l'ami, vous suivez. Allez. mu ngi xeeñ na siit bu naree neex suba xëy dafa xeeñ voilà Xadija ñam ci biir lépp ci biir dina saf sapp bu sobi yàlla xaaral ma baareel <laughs> ba mu baar <laughs> nen bi de tojugul ba tey ko nen bi ba tey tojugul Karima de ko eh, di ngeen ko musal de xool ndax seet na ko xool hmm. <laughs> Khadija kay ñamal ma xool ndax seet na ko xool kay voilà tu vois c'est bon hum c'est bon voilà ii ma la may nga ci la may gulee ci jaxatu ku ko lekkul doo wax ku ko lekk di wax teef jaxatu ma tojal ko ma toog ci <laughs> ma ne ko ma jaxatu njamb ci biir concombre <laughs> eh, wala xadija oui wala laa ko tojal j'ai fait mon concombre, concombre, concombre, concombre, concombre, concombre, concombre, concombre njàmb ci biir na soof rek Khadija Khadija demal ma nga appel ma kii luus ma luus ko ñeex gën gi togg bi maa ngi koy may xam ne yaa ngi nekk ci Karimisi may ko tamit waa parti démocratique sénégalais am nga luus ana luus bi ñoo seen du ñax bi la no pour ñax bi la ñam da ko ci biir am na luus boo ubbee la ci xoole wala di ngeen ko bàyyi tey lii nii laa xuta jëlle képp koo xam ne euh, moo da nga Karim Wade dañ ko yàbbi su ñuy waxatu la parce que Sénégal dëkk la boo xam ne les gens ils parlent trop te Karim ko war a bàyyi mu kii voilà mhm. ku wax mooy dégg ku waxul doo dégg <laughs> déglukat yi ak waxkat yi voilà Khadija kay taxaw nii nga teg leket bi tey bi teel ma lekket bi écouteur kay jege si neex pour site internet yi Seneweb M4 TV Dakar Buzz MMD Mamadou Mansour Diop 2A TV RTS Sen TV 2STV Lamp Fall TV TFM Walfadjri 7TV Dakaractu L'Observateur populaire, l'enquête, grand panel, direct news, alerte quotidien, yor yor, voilà. Et tu sais lu tax ma def écouteur bi képp kuy wax journal yi ma tudd ak rajo yi ak site internet yi yëpp dinañ ci bàyyi Karim njàmb ci biir voilà merci hmm. voilà donc maintenant li des moom mooy ëpp suma cin bay rek bu baax ñu yàkkal voilà am na loo xam ne moom du du mun a am dëkk boo xam <laughs> ma ne ko dëbb ndox li naan kii dafay dëbb ndox riital ko mu riidu voilà voilà voilà léegi nag ñu bàyyi ko ba ci kanam su ko defee euh, kii euh, Khadija kay débarrasser venir di di débarrasse léegi mu ñor parce que bu fekkee dafa Sénégal seen togg dañ koy bàyyi ba voilà voilà tu débarrasses léegi mu ñor ma yekk ko tu débarrasses voilà Karim Wade moom di ngeen ko bàyyi ci nii wala ci nali jàpp doomu jàmbur gi rek sax ko ne doo leen ko yàbbi wala le couteau la couteau couteau wala wala wala quel bon plat quel bon plat wala na njàmbur rek wala Khadija amène-moi des assiettes rapidement di ngeen ko bàyyi de doomu jàmbur gi Karim day bokk Karim du bokk Karim day bokk Karim du bokk boobu ba léegi léegi mu ñëw ni ma ko tegee nii muy bax-baxi mu ngi ci yoon bi di bax-baxi di ñëw Karim Karim mhm. laa xuto jël bu dugg ci ci dëkk bi ngeen xam ne dëkk bi yëngu na xale bi baax na am na bés yëngal dëkk bi <laughs> eh mooy bandi Karim mooy bandi voilà kay voilà kay Khadija demal ma site internet yi ban moo gën jege fii demal kii kay demal M4 TV eh li joxal ma waa M4 voilà da ngay ñëw rek teg ko ci buntu bi dégg nga da ngay teg ci bunt bi ñoom bu ñu yeewoo rek gis ko lii wala TV maa ngi ñaan sit internet bii di M4 TV lépp loo xam ne dañ koy wax mu safaanoo ak Karim Wade yal na seen lamini ëlbatiku fu ñu toog seen xel ne nekk ci Karim di ko promouvoir di ko waxal lu baax bu ñu déggee lu bon ci moom ñu bàyyi ko M4 TV yoo xam ne ko ñëpp dégg nga nga teg ko ci bunt bi daw dawal ñëw voilà <laughs> ku gën a rëy làmmiñ Sénégal voilà chroniqueur yi nekk Sénégal yépp sixesi xesi baasa Cheikh Bara Ndiaye ak ak ñi ma xam ñi ma xamul kuy chroniqueur tey yàq wala ngay defar rek boo gisee Karim Wade bés bu muy ñëw na nga wax ne kii ne ma yow chroniqueur bi nga xam ne maa ngi lay tudd Cheikh Bara Ndiaye Siré Sy Papa euh, euh, euh, ak ñi ma xamul ñi ma tudd ak ñi ma tuddul yëpp ko ko teew ba sele wal fajiri nga koy teg ci sele ba bi wala gaawal nga ñëw léegi journal kii ñoo des quotidien yi indil ga pour beneen quotidien yi presse en ligne bi dem na quotidien yi ñoo des nen ba nen ba ngi nii ak bi doo ma ñamal ndax chef na waxe ñaanal ci ñax bi day faj kii doo dugg kaso kenn du la consigné doo dem rëbës doo dem campina xam nga koo koy jox journal bi ko lii jox quotidien ma jambal su ko defee lépp jëmbaajoo ci kawam ma jambal mm, su defee du mun a jëmb Karim wala mm. waa kii Pape Alé Niang bi su waxee ci Karim rek di sooli Pape Alé Niang jaxatu bi lépp lu mu war a wax ci Karim Wade rek war a ci ko Karim ci lu baax waxal ko Karim ci lu baax voilà am bisimilahi rahmaani yow Pape Alé Niang ñëpp xam nañ sa xeex bi nga xeex Sonko lépp loo waral a waxal Sonko na ngay juum say kàddu naan Karim mooy candidat bi nga xam ne moom la Karim bu fekkee ne mooy plan A plan mooy plan B Sonko yow yow yow Pape Alé sa xel ak sa xalaat yëpp na dem ci ci Karim Wade yàlla na Sonko xelam dem ci moom kay nga yóbbul <laughs> <sighs> bi léegi nag boo nga yóbbu cin bi cin bi moom fële la jëm kay jàpp fi wala utal mox soo nga jàpp ni wala bal mu Xadija bii nag mu ngi dem ci Ousmane Sonko Cheikh Omar Diagne Ousmane Sonko Karim Xooxaq képp koo xam ne détenu nga te ñu jàpp la fi nga nekk sa xel ak sa xol yal na ci Karim Wade nekk yal na Ousmane Sonko ibi lii rek xelam na yàq ci Karim mu ne Karim mooy sama plan B jàppe ñu ngi dem ci kii camp bi nu mu tudd kaso bi nu mu tudd nekk hmm. Cap Manuel teraangi gi jóge fii dem Cap Manuel seeti Sonko jox ko supportajal bi su ko naanee xolam xelam dem ci Karim mu ne mooy plan B bi tojal bi ma tojal laax bi tojal bi ma tojal sarax bi mooy tax Karim Wade bu ñëwee dugg ci xolu ñëpp Karim way Karim kay way eh Karim way Karim kay way Karim way Karim kay way Karim